ak source ak xëy bi ñu leeralal yan tuuma la ñu gàll ci ndondul maître Moussa Diop ba sa njëkk bokk na ci fësalu dul dëgg duural nit maanaam sosal nit diffamation ba pare bëgg salfaañi réew mi jëfandikoo document yu baaxul soppar ñi mandarga réew mi yéen kaay gi ne ne yi bokk na ci yi ñu toppee maître Moussa Diop journal bii di Dakar Presse xëy fësal si xëy mu njëkk na maître Moussa Diop tuuma yi ñu gàll ci ndodam tuuma la yoo xam ne tuuma yu diis la moom maître li tax ñu jël ko mandat ko dépp bokk na ci kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko fan yi ñu génn wax ay contrat jamaa yoo xam ne nee na Macky Sall moo ko jox Jean Claude Mimra yéen kay gi du ñu xëy fekk fa Aminata Touré muy wax ci lu jëm ci contrat jama yi nga xam ne maître Moussa Diop suli na ko ci réew mi Aminata Touré nee na dix ans def na ko ci régime bi waaye mosuta dégg ñuy wax ay contrat yu jëm ci wàllum recherche maanaam wàllum seet jama ci réew mi moom Aminata Touré nee na nag am na yëf yoo xam ne lenn moo ko mën leeral maanaam ay commission d'enquête yoo xam ne war nañu ko mën a tekk maanaam ñu leeral yan licence la ñu joxe ak la ko jox ak ñen ñooy tambaambaloo sunu licencié bu dee nag am ñoo xam ne dañu leen a jox sunu licence ko jox ñan la ak yéen xeetu licence la ñu leen jox Aminata Touré jàpp na ne loolee ab commission d'enquête parlementaire bokk na ci li ko mën a leeral Aminata Touré tamit nee na bu dee nag ñi nga xam ne jox nañu leen ay licence maanaam dañoo fay xaalis ñu doog leen a jox licence bu dee am na xaalis boobee fan la dugg kàddu yi Aminata Touré la ma ngi ci kay gi di las ñu xëy fekk fa Barthélémy Dias doomu Sampol Dias bi démb janoon ak taskatu xabaar dañoo war a saytu recours bi nga xam ko fa ndax gi nee na Barthélémy Dias démb wax na ci journal du jóge ci mairie bu Ndakaaru yéen kaay gii di leen fu li mu jàpp mooy nguur gi jamono ji dañoo bëgg a éliminer Khalifa Sall waaye nag jaarale ko ci parrainage su député ndax moom Barthélémy Barthélémy Dias nee na ñoom pare nañ Khalifa Sall ba pare ñoom député yëpp taxawu te Barthélémy Dias nee na bu ñu ko daanee mën naa ñàkk ndombal tànk député li te boobaa fekk na moom pare na ba pare te boobaa kon parrainage su Khalifa Sall bi mën nañu ko gàntal Khalifa mën naa bañ a nekk candidat moom Barthélémy Dias nee na sax bu ñu ko jëlee ci député gi maanaam ka koy wuutu diggante bi du ñu mën a am jot boo xam ne danañu ko a ko tekk a éliminer Khalifa Ababacar Sall

Ndiaye bind na ko faram-fàcce na ko yéenekaay gii di mise point ñu xëy fekk fa Boubacar Camara daan wax ne Ousmane Sonko dañu ko war a jox ay fiches parrainage te loolee muy dëgg direction générale des élections amul sañ-sañ di lànk ba ñu jox Ousmane Sonko ay fiches parrainage ñi nga xam ne ñoo war a décider mooy waa justice te justice bi li ñu décider leer na nañ ñi te loolee administration bi dañu ko war a jëfee man Boubacar Camara gisuma benn dogal boo xam ne dogalub yoon la buy tere bokk Ousmane Sonko ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéenekaay gii di Vox Populi xëy duñu xibaar Ziguinchor di Mamadou Deme wax na ci lu jëm ci wàllum yoon ak élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal daan nay wax ne ñoom ñi nga xam ne ñooy magistrat yi jamono ji li ñuy xaar mooy élection yoo xam ne élection yu jaar yoon élection yoo xam ne du am benn rëq-rëq moom Mamadou Deme daan nay wax ne élection yi bu amee ay rëq-rëq du jugee ci ñi nga xam ne ñooy magistrat yi wax na tamit lu jëm ci wàllum indépendance de la justice nee na loole yëfu nit la maanaam magistrat bu nga indépendant yéen kay gii du ñu xëy fekk fa Aminata Touré daan nay wax ne magistrat yi du politiciens yi rek ñoo am na magistrat yoo xam ne xaalis mën na leen a influencer ndax du magistrat yëpp ñoo jub yéen kay gi di Verde News xëy duñu xibaar naan ñu AFP alliance des forces de progrès danañu investir candidat benn bokk yaakaar bi di Amadou Ba suba ci dimanche ji fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ca Grand Théâtre bu 9 jotee journal bi nee waa AFP jamono ji ñoo ngi waajal mobilisation bu rëy ca Grand Théâtre ngir nag investir seen candidat bi di moo ko tànn ngir mu nekk seen candidat te ñoom waa AFP nee nañu taxawaay bi ñu war a am ngir Amadou Ba gagné élection yi taxawaay boobee ñoom nee nañu dinañu ko am ba mu mat sëkk yéen gi du l'observateur xëy di ci Alpha Thiam mi ne candidat la ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Alpha Thiam mi nga xam ne miiri ndakaaru yëpp Alpha Thiam bind na ko miiri ndakaaru yi miir boo xool gis fa ñu bind fa Alpha Thiam Alpha Thiam kañ ngay bàyyi mi bato boo xam ne drogue la sëfoon yéene kaay gi wal fajiri xëy na nag wax ne na jigéen ñi nga xam ne seeni jëkkër ay militaire yu faatu lañu ñooñu mere nañu Macky Sall loola li tax ñu mere Macky Sall mooy fan yi ñu génn Macky Sall moo wax ne dina ndàmp ñi nga xam ne ay militaire invalide lañu lu toll si ñaari jàpp juróomi million ñi nga xam ne nag ay jigéen lañu seen jëkkër nekkoon ay militaire ñàkk seen bakkan ñooñee dañoo jàpp ne bu dee ndimbal rek war nañu leen di dimbale yéene kaay gi wal fajiri nee na lu jëm ci indemnité spéciale yi Macky Sall jagleel militaire yi am na ci benn militaire bu tudd Malick Diop bi mu encaissé xaalisam ci la ñàkk bakkanam mbir mu doy waar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar nañu ca diwaanu Casamance Sanor Sindia musiba gu rëy moo fa am ndax oto militaire yi ñoo jaar ci benn ndel maanaam benn mine mu explosé am ñeent soldaar yoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan am lu toll si juróom-ñaar ñoo xam ne am nañu ci ñu joxar bi baaraamu tuuma mooy ñii nga xam ne ñooy fippkat yi di ñenn ci waa MFDC ñi